mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun ci rajo Rewmi FM ni ki ñu koy defee rek dimanche bu nekk rek ci émission gox bi tey ñu am ci yenee mbégte gu rëy di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Mbagnick Ndiaye ancien ministre des sports euh, ministre bu yoroon itam wàllum communication ak culture Euh, moom la ñuy dalal moom mooy bokk moomeel bu commune bu euh, Ngayokhem moom nga xam ni commune bi moo nga nekk ca diwaanu Fatick n'est-ce pas monsieur ministre ñu ngi lay dalal jàmm ci émission Rewmi FM. jërëjëf euh, maa ngi lay gërëm di la sant. Mhm. ci invitation bi nga ma invité. Mhm. pour ñëw fii pour la première fois à Rewmi FM. Mhm. waxtaan ak yow ci gox goxaat googu ma jiite. <laughs> muy la commune de xem <laughs> te mu nekk à euh, une vingtaine de kilomètres de Fatick boo jógee Fatick. <laughs> di dem Bambey. commune bu Niakhar ngay jot. après nga jot ci commune bu Ngayokhem am mbégte lool nag ñëw di waxtaan ak yow. ci. commune bi. ok am na solo di la dalal jàmm rek ci émission bi alors monsieur le ministre dañ koy dooree coronavirus xam nga mënuñu da commencé ci dara. sans euh, wax ko tey gis nañ li nga xam ni moom moo jëm ci ñaareelu vague bi ni muy amee doole. Euh, ñi nga xam ni nag ñoom ñooy euh, mesures yi ba tey rek ñu ngi koy tengal ci wàllu yu ni mel mais laata ñuy dugg ci waxtaan bi yow da nga jiite commune sa commune tey génne nga koppar ngir mën a jàmmaarloog li nga xam ni nag moom moo jëm ci mbas mi mbas mi lan nga ñu mën a wax tey euh, ba ci saa si tembe sa commune ak xeexu mbas mi fan ngeen ci toll. jërëjëf am naa mbégte loolu wax ci ci loolu. Mhm. parce que euh, Covid bi dafa nekk euh, feebar boo xam ne bii médicalement peut-être ñu ngi jéem a découvrir ay vaccin mhm. mais en mars deux mille vin bi nga xam ne bii éclaté na. Mhm. jóge ca Chine. je que posé woon na adduna ji yëpp problème. Mhm. problème yooyu taxoon na ba suñu président de la république Macky Sall. Mhm. na un certain nombre de disposition pratique pour d'abord euh, euh, faggu. Euh, feebar bi. ci loolu bon ñun suñu ministre de tutelle. muy le ministre Omar Gueye bi nga xam ne mm-hmm. moo yore collectivité territoriale yi mm-hmm. am na ay dis ay dispositions yoo xam ne waxoon na ñu jël ko mm-hmm. d'abord euh, ci suñuy budget mais également ci suñuy naka la ñuy di daje maanaam rencontre yi nga xam ne yi moom la ñu amoon au niveau des collectivités territoriales mais avant may ñëw ci li ñu def au niveau de Ngayokhème je crois que situation bi nekk na situation boo xam ne bii euh, situation bu doy waar mhm. situation bu garaaw ni nga xale yi xale yi di di waxee mhm. parce que boo jëlee la première vague bi nga xam ne bii amoon na fi mhm. chef de l'État jël ay disposition yoo xam ne yi moo aaye woon na les voyage diggante région ak région euh, aaye woon na rassemblement yi mhm. demoon na ba def couvre-feu euh, dem ba euh, am un fonds Covid boo xam ne bii ay milliards et milliards la woon mhm. dimbale nit ñi parce que comme dañ leen tëjoon mhm. dimbale leen ci seen i seen i dund ak seen i possibilité bi nga xam ne bi constaté na ne xaw naa wàññeeku. Mhm. ñun dañoo bayandiku bayandiku boobu nag tax na ba li ñuy wax deuxième vague bi ñëw mhm. ñëw mhm. tey rek boo xoolee euh, démb am ñeenti nit ñoo xam ne ñii maanaam huit personnes génne nañ àdduna ci covid bi ñaari fan ñaari fan quoique loolu nag nekk na loo xam ne lii war na ñoo poussé waat ñu jël ay dispositions sécuritaire mhm. moo tax ma yegg see fii léegi nee naa la ana seen gel. Mhm. ah nga ne ma mu ci suuf. Mhm. te fekk man yéeg na. kooku donc mais gel euh, baa ngi nii euh, nga dem jox ma sa gel personnel joxoo ma gel yi gel yi réew mi FM kooku mbañik war na ko mun a jéem a xool naka la koy régler. Ah, mais loolu parenthèse bu ndaw la woon rek pour tooñ la. Ah, donc juróom-ñetti nit. gaañu ci kii bi hôpitaux yi commencé di feesaat. biñ disposition sanitaire yi ñu jëloon bu njëkk yëpp ñu bëgg ko remettre euh, dans le circuit mm-hmm. ça suppose que war nañu xoolaat suñu bopp mm-hmm. war nañoo xoolaat suñu comportement mm-hmm. parce que feebar boo xam ne bi day reyaate feebar boo xam ne bi wallaate bi yomb na feebar boo xam ne bi kenn xamul naka la koy naka la ñu jëlee disposition yi pour fagaru ko je ak que liñ ci mën a def rek mooy euh, jël euh, respecter li ñuy wax les mesures barrières. Mhm. métti na mais xoolal en France. Mhm. xoolal euh, euh, États-Unis. Mhm. Italie xoolal Italie xoolal Grande-Bretagne xoolal Allemagne. xoolal Portugal mais xoolal aussi Espagne. limuy muy faat ci bés. ñun nag fii ñu ñëw ne rek loolu loolu duñu dal mhm. te ñu gis suñuy mbokk yoo xam ne faatu nañ mhm. ngir loolu mhm. ah juste justement tey ñi nga xam ne ñoom ngi yëngu ci aadam cosaan ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum tàggat yaram ñu ngi ñaar pousse état bi ngir mu li nga xam ne moo jëm ci mesures yi ñu teggi ko ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum euh, acteur euh, ci aadam cosaan yow jóoriñ nga woon bu ñu dénk woon nu wi tey ndax d'accord nga ñu yëkkati mesures yi ngir ñu bàyyi la ñu dem seen spectacle yi. man de personnellement d' accord ma ci personnellement laa wax nag d' accord ma ci tax d' accord ma ci mooy feebar boo xam ne bii suñu organiser ay manifestation mhm. il faut que nit ñi ñëw ñi seetaan si ñii il faut ñu ubbi les les les bars les mhm. dancing ah il faut que ñu ubbi les le théâtre mhm. ah il faut ñu def lay manifestation de rassemblement te feebar baa ngi nekk sa deuxième vague. Mhm. di rey nit ñi. Euh, ngeen ne rek euh, il faut que ñu ubbi ko man d' accord ma ci personnellement. en mhm. tant qu' acteur culturel parce que nag mhm. euh, boo jëlee au sens propre acteur culture man acteur culturel ma jiite Ndefleng. ah maa jiite Ndefleng donc manifestation yi ñu prévoir ci ndef yeeg yëpp pour fin d' bi dañ ko bloqué. peut être ñoom lu ñu mënoon a wax. ak li ma leen mënoon a suggéré mooy ñu jéem a xoolaat état. mu jéem a def naka lay defee compensation. ci li nga xam ne lii euh, engagé nañ ko ay frais mm-hmm. perte nañ ko te ñu euh, def ko ci loo xam ne lii c'est vérifiable mm-hmm. contrôlable mm-hmm. boo xoolee par exemple le secteur du tourisme hmm? on avait dégagé une enveloppe pour le secteur du bi ñu xamee ne pande bi mu ngi fi mu ngi rey nit ñi mu ngi def nii dañoo mujj augmenté waat enveloppe bi ñu joxoon le secteur du tourisme moi je pense que euh, problème yi personnellement laa wax ne Euh, du forcer ne il faut que ñu def. Mhm. il faut que ñu ubbi il faut que ñu ubbi les lieux de spectacle. Mhm. ah du loolu. àlloo ci daal. Ah, da ànduma ci. ok léegi ñu dem ci sa commune. nga yoo xam bi nga jiitee ba mbas mi ñëwee génn nga enveloppe ngir mën a jàmmaarloog li ni mel ndax ba tey euh, sensibilisation ba ca war ñu ngi ko fay def. ba ah, au mois de mars ba affaire bi amee pare. bi ñu suñu ministre de tutelle ne il faut que ñu xool naka la contribuer mhm. ci dimbale élèves yi ak euh, le système enseignant mhm. ñun dañoo xool suñu budget lépp li nga xam ne bii prévoir nañ ko en deux mille vingt mhm. pour ay fourniture scolaire ak ay appui au système scolaire dañ ko jël euh, jënd ci ay masques jënd ci ay lavoir jënd ci ay gel mais jënd ci ay savon jënd ci aussi ay madaar ay ay ay ay yëpp loo xam ne lii day contribuer mhm. à vraiment la propreté mhm. ensuite ñu oo tous les jeunes sont autour des ASC mhm. autour du conseil communal de la jeunesse ñu ndajeek sous-préfet bi ñu expliquer leen ak médecin chef bi ñu expliquer leen vraiment les dangers ah de la maladie ñu ñu jël prospectus yi nga xam ne yi defoon nañ ko dugg ci dans chaque village mhm. ñu def fa ce qu'on appelle un comité de veille et de surveillance mmh. sensibiliser les populations mhm. fi nga xam ne fii ay marché hebdomadaire lañ fa amoon ñu jël ak sous-préfet bi arrêté fermé lépp loo xam ne lii marché hebdomadaire la au lieu de rassemble rassemblement la loolu def nañ ko mhm. bañ fa jógee suñu tailleur yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk ba <laughs> dañ leen jox xaalis ñu confectionner ay masques <laughs> demuñu jënd ay masques fu ñuy jënde masques yi mais dañoo confectionner ay masques dañ leen jox piis <laughs> jox leen tissu ñu dem confectionner ay ay ay masques loolu jot nañ ko def euh, par rapport au système scolaire mais également par rapport aux populations man am naa dans la zone une rajo communautaire Ndefleng FM qui est basée à Fatick chaque euh, spot dañu doon passé loo des spots ah vraiment de sensibilisation <laughs> d'information sur la maladie sensibiliser au aussi docteurs yi au au ñëpp ñoo xam ne ils sont dans le corps médical mhm. ñu ñuy expliquer naka la la mbir mi jàppee bu la jàppee fi nga war a dem mais monsieur le ministre est que message bi mi ngi jàll mais message maa ngi jàll parce que c'est en direction de la population locale mhm. ñun ñu ay ay jëluñu ay ay message yoo xam ni du jàll. <laughs> suñu message média en séréer la. <laughs> principalement parce que nous sommes en zone séeréer. <laughs> quoi que donc message yaa ngi jàll ensuite euh, xew-xew yi doon am yëpp. Mhm. dañ leen aaye amatul ngénte amatul dëj. Mhm. amatul céet amatul dara. Mhm. ñi nga xam ne ñi ci lieu de culture yi la ñuy nekk mhm. muy jumaa yi ak église yi ak euh, façon yi rencontre yi ñu doon organiser yëpp mhm. pour que nit ñi bu fa daje mhm. yëpp dañ ko annuler yëpp la annule annulé avec le le du de monsieur le sous-préfet nga yoo xam ñuy waxtaanee monsieur le ministre tey la nga xam ni nag moom moo jëm ca commune ba am na loo xam ne mën nañ ko fa tegee loxo ne lii jàpp nañ ni ci ayub Mbagnick Ndiaye la amee euh, monsieur le ministre tey fu commune bi toll Ngayokhème d'abord il faut ma wax la fu Ngayokhème toll parce que yoo xamoo Ngayokhème fu mu toll te wóor na ma ne Mbagnick Diop mi nga xam ne mooy sa président <laughs> directeur général loolu nga yaakaar rek xamul fu Ngayokhème toll Ngayokhème boo jógee département de Fatick mhm. la nekk ñaar fukki kilomètre ak juróom ci région mhm. de Fatick mhm. boo ñëwee ba dugub biir Fatick boo jógee dakaar bay dugg biir Fatick wala boo jógee Bambey ah par Ila Touba bi moo gën a gaaw. boo mm-hmm. génnee Bambey rek commune Patar ngay jot. mu mm-hmm. nekk la commune à l'est boo dawee à peu près cinq à six kilomètres di nga gis plaque bi ñu fa def. Mm-hmm. wan la na la commune da ngay waxee. boo jógee Fatick di dem hmm, Bambey boo ñëwee bi ci station d'essence Total bi. da ngay tourner à gauche mel ni kuy dem Bambey boo tourner à gauche rek yaa ngi dugg ci commune. Niakhar. <laughs> Mhm. immédiatement après la commune de Niakhar di nga dugg dans la commune de Patar boo duggee dans la commune de Patar di nga gis à gauche ah plaque bi la woon ne commune da nga yoo xamante ni mu nekk nag dëkk boo xam ne bii boo xoolee ci euh, st bi. Mhm. Patar moo fa nekk comme commune. Mhm. à l'ouest et au sud-ouest ñaa ngi am Diarère ak commune de Fissel. yaa ngi am la commune de Niakhar au nord yaa ngi am la commune de Ngoy Aliou Sylla mhm. ñii ñooy communes yi nga xam ne yi ñoo ñu seq mhm. ñu nekk nag zone boo xam ne bii zone bu zone yi séréer la d'abord mhm. quatre-vingt à quatre vingt pour cent de la population ay séeréer lañu je crois que donc kooku nekk na loo xam ne lii am na importance nous sommes à peu une population aussi de vingt-neuf mille Oh, vingt neuf mille trente vingt mille habitants mhm. yoo xam ne yi répartis dans dix huit commune bi communauté rural la woon li ñu doon wax communauté rural bu njëkk mhm. avant ñu koy def fii ci Sénégal mhm. ah, Ngayoxem bokk na ci zone yi nga xam ne yi ci lañ ko doon expérimenté xam ndax communauté rural buñ ko fi indee dina baax wala du baax que donc nekk na zone boo xam ne bii. Mhm. Euh, les problèmes de gestion ou de réforme euh, des collectivités territoriales. Mhm. ñun ñoo bokk ci tête de peloton yi ko mun a e-, expérimenter. Mhm. vingt neuf mille. Euh, habitants habitants. Euh, nga am dix huit villages. boo jëlee les différents secteurs je crois que boo jëlee deux mille de deux mille douze. a deux mille vingt. wala de deux mille vingt de deux mille quatorze. Mhm. à deux mille vingt. Mhm. li ñu soppi ci bien-être population bi. Mhm. Ah, bu ma toogoon di ko lim. je que dina. dina jukkil ñu si rek mais. quelque secteurs laa lay jukkil rek. boo jëlee par exemple le secteur de l' électricité. maanaam ah, dëkk yi nga xam ne yi dañu am ah, courant. Mm-hmm. jusqu'en deux mille seize quatorze mm-hmm. jusqu'en deux mille quatorze mm-hmm. ñaari dëkk ñoo fa amoon courant ñaar muy ban muy tukaar ah ak ngayo xem ok ah, te ñaari dëkk yooyu ki leen électrifié woon mooy Macky Sall bi mu nekkee ministre de l'énergie donc Macky mu ngi nekk ministre de l'énergie xam nga ban période la nekk ministre de l'énergie ak ban période toog nañ à peu près juróom wala juróom benn at yoo xam ne wala juróom-ñaari at yoo xam ne kenn am amu ci courant sur les dix-huit villages. léegi fu mu toll. léegi fu mu toll mooy Malimal. Mhm. jële benn <laughs> Toucar. Mhm. temps yi euh, Makhtar mhm. def nañ fa électrification ak extension d' électrification pour quarante trois millions. Toucar. Ngayo Xem temps yi Makhtar bi mu nekkee directeur général Sénélec. defal nañu la même chose. donc tey boo demee Toucar ak Ngayoxem mhm. quartier yi nga xam ne yi amuñu courant mhm. mooy ce qu'on appelle les te avec euh, Pape Biteye ñu ngi jéem a de xool naka lañ ko mun a améliorer mhm. pour arriver à l'électrification à cent pour cent ou à quatre pour cent ci région yooyu maanaam des na waaw des na boo jëlee nag dëkk yi ñu ci yokk te ñu am courant mooy da ngay jël euh, dëkk bu ñuy wax Kalom Kalom PUDC électrifié na ko électrifié na dëkk bu ñuy wax Ndofane électrifié na quartier bu ñuy wax Mbafay boo jëlee dëkk bu ñuy wax Poudaye électrifié nañ ko courant baa ngi ne ràññ boo jëlee dëkk bu ñuy wax Ngangarlam noteel noteel nga xam ñaataay des électrifié nañ ko jëlal Kalom acca ñu dem jëlal Poudaye ah jëlal Ngangarlam jëlal saas mhm. jëlal saas yii mhm. dëkk courant baa nga fa ne ràññ lu ñu mën a gis la mën mën a mën a teg bët mhm. te euh, teg bët bi mooy dem na sax bi ci biir biir dëkk biir biir maison yi nit ñi def nañu seen abonnement boo jëlee ñaari dëkk yi njëkk électrifié nga yokk ko ci ñaari dëkk yow muy nekk ñaata dëkk léegi actuellement boo jëlee dëkk bu ñuy wax ngaan mm-hmm. ah boo jëlee dëkk bu ñuy wax ŋonin mm-hmm. boo jëlee dëkk bu ñuy wax sob mm-hmm. yii seen électrification jeex na terminé na maanaam taal a ci des taal mu ci des te defe naa fii ak euh, fin janvier début février dinañ ko taal parce que du fekk ñu dem ci élection locale yi ak ah, ñu ngi koy lam-laame dinañ ci ñëw ñu boo jëlee dëkk bu ñuy wax ndox. Mhm. ah kooku ah, il y a deux semaines. Mhm. ah waa Sénélec yónnee nañu fa une équipe pour ñu commencer gis nañu. Mhm. ñu ngi bëgg samp poto yi. donc boo calculer ne bi ñuy ñëw 2014. nañ nekk maire ñaari dëkk ñoo amoon électricité. léegi calculeel ah fii ak fin février ñaata dëkk ñooy am électricité mu nekk quelque chose d'extrêmement important. parce ça permet aux établissements scolaires yi fa nekk. Mhm. de se connecter ah vraiment sur l'internet. Mm -hmm. ça permet aux jeunes qui son là-bas. Mm -hmm. d'être sur les techniques. ah de l'information. mais mhm. ça permet aussi aux populations que ñu am les les effets bénéfiques. de l'électricité muy lan muy muy euh, éclairage. de maison yi. muy lan muy nga am sa télévision. muy lan muy nga am sa frigidaire. muy lan mooy boo mu bëggee ji denc say aliment mhm, nga ah, ko denc nga am foo ko mën a mhm, mais ci wàllum ndox mi itam. mais euh, wàllum ndox ay jéego am na fa. bu bëree bëree bëri. 2012 mhm. ba ma commencé di dugg ci politique bi. Euh, à peu près à euh, pour cent. maa pour cent population pas accès vraiment à l'eau mais léegi pourquoi parce que. foofu ci ay teen. Mhm. lañ doon root. léegi. Mhm. de deux mille douze. soppeeku am na ci. à mille. Mhm. à deux mille vingt. soppeeku bu rëy rëy rëy am na ci. amul benn dëkk. sur les dix huit villages. benn dëkk boo xam ne bii xëcc ñu. ndox mi mu ñëw foofu. xam nga naka laa ko defee. chaque année dañuy voter un budget de euh, huit euh, millions. pour l'adduction d'eau. mais loolu doyul. Ah, damay dem direction OFOR. Mhm. wala direction de la ah, de l'hydraulique mhm. di leen ñaan ay tuyaux. ay ah, tuyaux ñaan ñaan leen tuyaux. Mhm. bu ñu mayee ay tuyaux. booleek sama huit millions yooyu ma woote budget ma ñëw ne population bi am naa quatre kilomètres de tuyaux am naa vingt kilomètres de tuyaux am naa deux kilomètres de tuyaux. dëkk bi mooy bénéficier. donc waa dëkk bi gas. man ci xaalis boobu ma prévoir prévoiroon pour def kii ma fay euh, les éléments complémentaires parce que tuyau bi rek boo ko mm-hmm. tegee du sotti mm-hmm. il faut nga am ay joint il faut nga am gas il faut nga raccorder il faut nga def ciment donc léegi tous les villages mm-hmm. tous sans exception am nañ ndox maa ngi wax euh, ñu muy dégg amul dëkk bu amul ndox maintenant li des mooy bu borne bi ñëwee bi ci penc bi fa lañ koy samp fa benn borne fontaine léegi nag yow boo buggee xëcc pour dugal sa kër. Mhm. pour am les commodités liées à l'eau mhm. kooku yow yaa koy defaral sa bopp. maanaam maire bi du yeggal yi loolu du yeggal loolu léegi bu ñu la déggee mooy maanaam euh, commune bu Ngayokhème mi ngi dugg ci wàllum émergence. mais waxuma émergence sax mais super émergence parce que boo xoolee condition sociales yi conditions économique yi conditions de vie mhm. traditionnelles yi population yi doon vivre à partir de 2012 à 2020 ah képp ku dëkk ci Ngayokhème ah mun na la ne conditions yi soppeeku nañ mhm. eh, xàll yi nag ci wàllum yoon. ngay xam itam am na ci ay jéego yu ñu ci def. wàllum yoon nag damay sànni xeer gouvernement bi. ah bon waaw. Mhm. wàllum yoon. je mhm. que président. lu gën tey ci yoon wi. Euh, président Macky Sall. ñi nekk ci gouvernement bi dimbalewuñ ko. Hmm. dimbalewuñ ko. mais yan secteur. Euh, secteur yoon wi. parce que man mënuma comprendre. Euh, ñu def un projet de budget. Mmh. Euh, lancer un appel d'offres entreprise sénégalaise gagner marché bi. Mmh. président Macky di dem campagne électorale. Mm-hmm. ñu taxawuloo ko Kër Martin. Mm-hmm. def fa une très grande cérémonie. Mm-hmm. de pose de la première pierre du bitumage de la route Kër Martin. Diohine. Mhm. tukaar ngayo xeem ak mhm. waxal jàmm mhm. ñu ne ñu en douze mois la travaux yi di ba président Macky Sall wone ginnaaw yoon wi la matériel ya fa nekkoon yëpp bul yeeg caterpillar euh, yeeg ndëraan yëpp aw seen yoon dem lu waral loolu li waral loolu mooy d'abord peut-être président amoon na volonté. Mm-hmm. Ah, defar yoon wi. Mm-hmm. entreprise bi mooy ministère des travaux ministère des infrastructures. Mm-hmm. am na xaalis bi. lancé na appel d'offre bi. un entrepreneur ak gagné le marché. le marché a été enregistré. l'entrepreneur notifié nañ ko. léegi li waral loolu nag. loolu lañ bëgg a laaj. vraiment gouvernement bi. parce que. Mhm. li ci gën a garaaw. Mhm. mooy président euh, dañ koy jëllu mhm. ay engagement président day def ay action mais le suivi de l' moo des moo des ci gouvernement bi. am na aussi beneen chantier bu ñuy wax la boucle. du Toucar. jóge jóge ñaaxar. ñëw Toucar def ndox. ngoonin euh, bari ngangarlam dellu si Toucar muy vingt sept kilomètres entrepreneur bi tànn nañ ko notifié nañ ko marché ñëw na commencé euh, di bitume euh, piqueté mhm. mhm. ah, nawet bi ñëw mu aw am dem ñaari nawet a ngi ni mhm. kenn gisatu ko kon yéen su ma leen déggee daal am ngeen problème yu taratar ci wàllum yoon ah oui oui kooku moom maa ngi koy wax suma baat ci kaw gars yi dimbalewuñu président Macky Sall ci désenclavement ah de cette partie du Sénégal. Mhm. léegi looy sàkk ci jëwriñ ju yi nga xam ni fal nañ ko. mais jëwriñ gu yees bi muy Mansour Faye. kooku mhm. bu buggee dimbale gorom. bu buggee dimbale président Macky Sall mooy fexe. fii ak élection locale yi. wala fii ak élection yi ñëw. ñu defar yoon wi. goudronné Kër Martin. Diohine. Toucar Ngayoxem waxul jam mhm. def la piste latéritique ci constitue la boucle du. bu dul loolu ay gàllankoor ci am. mais bien sûr bu dul loolu. Mhm. ah ñun dinañ am nu ñu koy xoolee. nan ngeen koy xoolee yéen eh, ni ñu koy xoolee mooy ku dimbalewul président ci engagement yi mu jël. waaw mhm. ah, waxoon naa ko Abdoulaye Daouda Diallo. parce que moom moo posé première pierre bi. waxoon naa ko ko. ba mënuñu fañ jort ay vote sanction ci élection locale yi. non Macky moom du am vote sanction dans le sud. kooku moom naa moom. ah ah yéen a ngi sàkku ñu defaral leen gis nga di nga di nga mere di nga mere sa sa sa sa sa sa mbokk. Mhm. mere ko mere ko mooy buy dem xiree rek. Mhm. mer ba dina deñ. mais monsieur ba ci jafe-jafe yi tam. Ah, noonu lañ koy bàyyi mais jafe-jafe yi Macky fi la ko fekk. ba mu juddoo ci axe boobu taxawal ba mu juddoo. Mhm. daf ko fay fekk. màgg fekk ko fi. nekk au pouvoir di ko jéem a solutionné. ñi ko wër kañ ñoo ko dimbalewul. maanaam Ageroute yeeg Promoville yeeg. yeneen yi ah, yaa leen tudd. Mhm. kon ah, yaa leen tudd principalement Ageroute. Mhm. ñoom ñoo yor chantier yooyu. ñoo yor chantier yooyu. Mhm. mais demul dikkul. demul dikkul. ok léegi kon su la déggee mooy maanaam euh, kon bilan bi nu mu mel foofu ci ngay waxe euh, bilan bi kay il est reluisant sauf la tache noire principale tache noire mooy désenclavement bi. l'autre tache noire mooy. man mënuma comprendre. ñu entreprendre jox un entrepreneur sénégalais. Mm-hmm. ay mmh. de construction du centre technique professionnel de Toucar. Mm-hmm. mu dem ba bâtiment yi génn ci suuf si. Mm-hmm. dem ba ñu raser ah keroog lañ leen gi gis. je que donc kooku aussi. nekk na loo xam ne lii wax naa ko ministre. Dame Diop. ah moom annoncé nañ ne quarante cinq centres. Euh, ma ko defar ba ci yéen ci ba euh, euh, bokk ci parce que kii temps yi temps yi Mamadou Talla la. pose première pierre ba maa nga fa woon. Mhm. deux mille deux mille treize lañ posé la première pierre. Mhm. deux mille treize à maintenant ça presque sept ans. Mhm. chantier baa ngi bloqué c'est pas normal. waaw ñii dimbalewuñ président Macky Sall. te bu ñu ko doon dimbalee nañ fexe vraiment euh, ñu naka la ñuy trouver de solution parce que mënoo nekk un entrepreneur sénégalais. ñu jox la un marché. ñu jox la un marché boo xam ne c'est un marché d'intérêt mhm. communautaire mhm. nga commencé di ko liggéey ba ci digg bi mhm. xamuloo nag xamu ñun population bi ñu am ci espoir am ci mbégte ah jékki chance bi taxaw c'est pas normal ok léegi monsieur le ministre su ma la déggee mooy maanaam euh, tey am na fi nga fekk Ngayokhem am na fu nga ko yóbbu euh, maanaam doxalin bi changé na am na lu bëri ci changé lu changé ci commune bi. kon nga ne ma bilan bi gongo. waxuma gongo sax mais super gongo super gongo parce que boo jëlee éducation. Mhm. ah boo jëlee éducation chaque année dañuy def huit millions de budget pour jëlee éducation. Mhm. presque fukki école ak juróom ñett yi nekk ci biir commune bi. Mhm. presque ci fukki commune fukki fukki écoles yi ak benn. Mhm. tabax nañ fa ay salle de classe. équipé nañ fa. boo jëlee fukki euh, écoles yi ak juróom-ñett yi. Mhm. Ah, jël nañu ci fukki écoles yi. Mhm. ah nañ fukki écoles yi. xam nga ci àll bi. ah bu ñu tabaxee rek dañu tabax ci sans clôturer. ministère prévoir au mbaam yeeg euh, béy yeeg. nag yeeg. Mhm. et cetera et cetera les animaux ñooy discuter la cour de l'école mhm. avec les élèves rax ci dolli fu ñu tabax fu ñu tabaxoon école. Mhm. Euh, defuñu fa ndox ah mais ñun. clôturer nañu à près juróom-ñetti juróom ah, ñetti ecole yoo xam ne yi clôturer nañ leen. ba fekk fi ñaari école yoo xam ne yi avant ñoo ñëw ñu clôturer leen muy fukki école yoo xam ne yi. clôturer nañ leen. Mhm. ci gestion bii ñuy dem. Mhm. dinañ ci jéema a clôturer euh, ñetti école. Mhm. tablement yi. yal na ko yàlla yërëm. xaree ko ajjana. bekkaay bekkaay. chaque année. Ah, chaque année ci budget dama ko doon taxaw mu prévoir ñu trois cent tablement ba tey avant muy génn àdduna. su mujj dajee ak moom. trois semaines avant muy génn àdduna su mujj dajeek moom. Mhm. ca ministère ba mooy fexe woon trois cent table banc yi ñu promettoon ñu indi ko. Mhm. malheureusement. Mhm. génn na adduna yal na ko yàlla waa ju baax. ko xam ne kii ku attentionné woon ci population léegi wax naa la électricité bi. wax naa la ndox mi. wax nga jàng bi wax naa njàng mi. léegi boo jëlee la santé. bañ fa ñëw ñaari poste sur les dix huit villages. Mhm. ñaari post ñaari dispensaire moo fa amoon moo fa amoon. Mhm. dispensaire amuñu woon benn ambulance. Eva Marie Coll bi mu nekkee ministre de la santé. Mhm. jox na ma benn ambulance. Diouf Sarr bi mu nekkee ministre de la santé. jox na ma ambulance médicalisée ah ah léegi ñun ci suñu budget. ah chaque année dañuy jox quinze dix à quinze millions. pour ñu jënd des médicaments. ñun suñu budget recruter nañ benn infirmière d'État. Mhm. recruter nañ trois agents communautaires de santé dem gisee structure yi jërëjëf. Mhm. Ah, ak Jarawlak. Mhm. Ah, Sonatel. parce que avec la fondation Sonatel. Ah, réfectionné nañ fa ay cases de santé. équipé nañu fa ay cases de santé. waaw donc lii am na loo xam ne lii. am na solo ba tax na léegi le plateau médical. de la commune. a été relevé sensiblement. Mm -hmm. je que donc léegi amatul manqué nañ garab. Mhm. parce que chaque année il y a une enveloppe destinée à l'achat des médicament mhm. amatul aussi euh, problème ambulance peut-être am na parce que ambulance tukaar bi dafa panne. Mhm. mais euh, normalement. Mm de santé bi waroon na ko mun a réparer. malheureusement réparer wu ko donc ça pose un problème. mais tout le personnel sanitaire et en place. te yaa leen di fay ci sa gafa. voilà maay fay infirmière bi. Mhm. maay fay trois agents. Mhm. communautaire yi. Mhm. maa leen di fay. ak acte trois bi ah, tey noo ko gisee yow itam. waa acte trois bi moom nekk na loo xam ne lii bu continuer. ci appuyer collectivité territoriale yi. je crois que mun naa nekk loo xam ne lii dinañu dimbali. ñu génn ci situation. Euh, d'extrême ruralité. bi ñu nekk. waaw donc à travers ça. Mhm. président euh, la république Macky Sall. Mhm. xam na ko ba mettre na en place de PACASEN rural. Mhm. fonds yi sax war na disponible fonds yi disponible agul nag. waaw war na disponible nañ ko ko yëpp ndax wax nañ ko ko wax nañ nee nañ disponible agul euh, wala mars. waaw ñu ngi xaar. waaw dina yow léegi su ma la déggee mooy maanaam bilan bi rafet na macha allah. kon bu ñu ne woon. élection locale ñuul ñuul boobu. waaw bu ñu ne locale. je gagne haut la main Mbagnick Ndiaye da ngay présenté waat. bu yàgg laa ko wax parce que suma objectif li tax may présenté waat. mooy mhm. Mhm. xam naa ne juróom-ñetti dëkk yi nga xam ni bi amuñu courant. Mhm. bu ma fa jógee pour ñu amaat courant dina yàq. maanaam yow rek yaa ko fi mu mën déedéet du man rek maa ko fi mais les démarches. du man rek maa fay doomi dëkk bi. du man rek maa fa gën a capable du man rek maa fa gën a mun. mais yàlla may na ma am naa entre or ah, ci ci ah, en Afrique. Mhm. boo amul entre gens pour régler yenn problème yi. Mhm. ah je crois que mën a mën a mën a. Mhm. du tax nga régler ko. maanaam ka may candidat la ci bu ngir jekkali. ay action yi mu war a yeggali ah, foofu voilà léegi euh, am na débat bu ñu fi agité fan yi suppression ay ville euh, ministre Omar Gueye moo ko wax ba ñu ci bari ñu ngi ciy àddu yow maire nga ñu am occasion itam dalal la loo xalaat ci. supprimer maire commune la. ah maire commune rurale la Omar Gueye mënut a supprimer les communes rurales. non léegi da ngay oo da ngay oo. Soham Wardini <laughs> Aliou Sall. Mhm. Ah, ñoom Talla Sylla mhm. ah ñooñ nga oo leen. Mhm. ah ñoom. amoo ci xalaat yow. man am naa ci suma xalaat. mooy lan mais suma xalaat. du ci am solo. déet wax ñu rek en tant que ah, ah, maire ah, commune. man maire commune rurale la mhm. bu doon ne dafa ne woon day supprimer commune rurale yi. <laughs> ñu mun a jàmmaa jàmmaarloog moom wax ak moom. Mhm. ñu dégg. Mhm. mais bon ça c' est commune commune commune les les villes la bëgg a supprimer. que ça aussi c' est grand débat boo xam ne bii ñu ngi koy agité. bon il faudrait que ñu ñu ñu dëgg bal bi. mooy maanaam euh, calmer un peu les ardeurs. xam nga mënuñoo def ay ay réformes. Mhm. wala mënuñoo def ay coppite pour avancer. Mhm. ci ay tension il faut que ñu dë dëgg bal bi. Mhm. waxtaan calmement. ci les tenants et les aboutissants les avantages et les inconvénients de la suppression. de ces cinq villes la je crois que buñ ko deful. coow bu bëri rek la fiy indi. ànd nga ci yow. non non man c'est pas problème que ma ànd ci que ma bañ cee ànd. parce que pour ma ànd ci il fallait que ma xam les conséquences et les répercussions sur la popul sur ma population mm-hmm. te man ma population n'est pas concernée ah c'est un débat mm-hmm. boo xam ne bii sa intéresse plus d'autres mm-hmm. que que man naa yaa ngi doon wax dialogue bi donc il faut que vraiment gars yi dialoguer il faut que ñu waxtaan jéem a xool les tenants et les aboutissants bu ñu xamee ne y a plus d'inconvénients que d'avantages je que président Macky Sall. Mhm. buñ ko nee bàyyil mu bàyyi. Mhm. buñ xamee ne y' a plus d' avantage que d' inconvénient buñ ko nee continuer mu continuer. Mhm. l'un dans l' je crois que ñun ñi ci ñi ciy wax ñëpp. ay experts de ceci experts de cela experts de ceci expert dañuy wax lu leen neex rek. dañ leen toog autour de Omar Gueye. ah wala autour d'un comité boo xam ne bii dañ koy mettre en place. association des maires. réfléchir. Mhm. autour de ça. je mhm. que donc euh, man loolu moo ci suma association des maires sax c'est des partisans. Mhm. c'est des partisans <laughs> donc état bi. nga xam ne moo bëgg a def la réforme. na créer des structures de concertation. ah et une large concertation entre les populations. entre les élus. ah les concernés. ñu jéem a xool mhm. les avantages et les inconvénients parce que nag mhm. on ne peut pas aussi avoir des structures figées mhm. structures yoo xam ne yooyu du ñu évoluer mais ak Covid bi ba mu ñëwee dafa tas dafa tas toutes nos toutes no croyances toutes no pensées toutes nos nos nos axes de reflection tout notre mode de vie ah Covid bi daf ko est-ce que mënoon mën nga xalaat ñëw takk masque di wax ak di wax ci journal metti lay doon xam nga lu métti lay doon. Mhm. mais Covid bi Covid bi tax na ñu am ñu am yenn yenn yenn réflexe yi. Mhm. donc il faut que les gens jaloo il faut qu'ils se concertent. Mhm. wàccee tension bi. tey ñoo am na ñoo xam dañ jàpp ni ay soubassement politique la la mbir mi lalu. ma ne man daal li may wax bu doon commune rurale. ma mun cee wax. <laughs> mais commune commune de ville ndax eh, ville la dans des dans des aires. géographique urbaine. Mhm. je crois que liñ ci mën a wax rek ay soubassement ak yooyu yëpp. Mhm. mais mais nañ toog autour de la table. Mhm. bu dee soubassement politique ñu ne soubassement politique la. bu du soubassement politique ñu ne du suba politique. c' est un soubassement d' intérêt c' est un soubassement d' avancement c' est un soubassement de modernisation c' est un soubassement de progrès. mais bu dee c'est un soubassement politique aussi ñu xam ne c'est un soubassement politique. Mhm. est-ce que tey yéen a ngi prévoir tey ci seen mairie ngir mën a yokk seen koppar ak xeexu deuxième vague bii ñu annoncé parce que bii itam mi ngi ñëw ak doole. waxum ak doole sax mais c'est un grand tonnerre coup de tonnerre un grand coup de tonnerre. Mm-hmm. yéen a ngi koy préparer mais ñu ngi koy préparer au niveau des budgets que nous allons voter. Mm-hmm. Mm-hmm. mais également au niveau des reliquats ah budgétaires yi nga xam ne euh, am nañ ko. mais aussi au niveau de la sensibilisation. et de la conscientisation ah. des des des populations. qui sont principalement les principales victimes. xam nga Covid ku mu jàpp. ci àll bu sori bële. ah. nga naan sama bopp day métti suma yaram day métti toog fi ñaari fan ñetti fan ah mu éclaté ah balaañ lay indi hôpital dalal jàmm wala hôpital fan nga ñëw fii ah, nekk ab nekk ab koo xam ne bi ngi téye complètement démuni mm-hmm. ah lay jël en charge léegi est-ce que loolu mënuñu yokk tey doole gox ak goxaan yi ngir ñu gën leen mettre yenn seen responsabilité comme bu yooyu amee ngir ñu mun leen faj ci euh, faj bu bu jaar yoon. mais je crois que l'État est en de faire des efforts parce que boo jëlee sax hôpital. régional bu kaw Fatick. je crois que am na ay équipement yoo xam ne yi bu nit ñi sentir yenn symptômes yi. bu ñu ñëwee mën nañ leen jël les premières prises en charge wala nañ leen fa mën a jël. Hmm. je crois que donc euh, à ce niveau aussi je crois que il euh, y a des il y a actions qui sont en train. Hmm. nga xam ne ñu ngi koy def. Hmm. jël nit ñi en en charge mais daal di ci mun a doon. mooy nañ leen def les les les mesures barrières. nañ leen moytu. jusqu'à ñu indiwaat couvre-feu bi d'accord nga ci. ah s'il faut ñu indi couvre-feu bi non seulement ñu indi mais en France. dans les pays européens dans les pays les plus développés mais couvre-feu baa nga fa pourquoi ñun duñ ko def fii pourquoi duñ ko def am na nga ñu indiwaat ko waaw bu baax a baax buñ ko waree indi nañ ko indi ma ne bu ñu waree indi couvre-feu bi nañ indi couvre-feu bi parce que nag hmm. ñun am nañ notre manière notre modalité nos croyances yoo xam ne yi da ngay dem da ngay dem ci àll bi nga ne ki ñu ne la waaye tekki sa lii lii amul. tey nañ koy dund tey looloo looloo ngi nit ñi. yow d'accord ci couvre-feu bi. déet yow laa laaj yow laay laaj. laay laaj interaction la yow laay laaj d'accord nañ yow laa d'accord. yow après la wax. sama sama sama xalaat ci plateau bi <laughs> wax ma ko ci plateau bi. li kon euh, jàmp na ba fii parce que. Ah, waxuma ne jàmp waxuñu ñu dund ak virus bi itam. non waxuma ne jàmp na. Mm-hmm. parce que au niveau de chaque état organisé. Mm-hmm. il a au moins un comité scientifique. un comité d'évaluation de la pandémie. Mm-hmm. qui conseille. maanaam buy jox conseil à à décideurs yi. Mhm. bu dee war nañ ko mun a jël ñu jël ko. mais boo jëlee boo jëlee comportement du Sénégalais d'une manière générale. Mhm. tant que defuñu couvre-feu ah tant que indi waatuñu fii euh, état d'urgence bi. ah je crois que euh, ñu bëri dañoo xel di dee rek. mais monsieur le ministre ak koom-koom bi itam boobaa dina nërmeelu de. waaye mais koom-koom bi bu nërmeelu koom-koom bi nërmeelu moo gën ñi ñi nërmeelu. am déet parce que ñu ngi wax dund ak virus bi ma dund ak virus bi d' accord nañ dund nañu ak virus bi ah gis nañu la conséquence deuxième pandémie deuxième deuxième vague bi ñëw na mu ngi faat ñu ne nag nañ leen nañ leen bàyyeendiku rek continuer di di kii ah dañoo continuer di faatu léegi sa commune yan mesure nga fa nar indi yow man suma commune mesures yi ma indi c' est des mesures de prévention mhm. c' est pas des mesures de restriction mhm. man prévention rek laa mën a jël mhm. yokk gel yi yokk sensibilisation yi yokk masques yi léegi sax man maa ngi ut 3000 masques. Mhm. je crois que Mbagnick dina ma may 3000 masques. waaw mu ngi lay dégg ñàkkul ah, Mbagnick mu may dégg defe naa dina ma may masque <laughs> ah je crois dinaa seet suma xarit yi nga xam ne ñoom ñëpp. Mhm. ah war naa mun a fëgg seen bunt ñu may ma masque. ñu may may masque. ñu may ma mhm. ñu may ma gel ñu may ma omo ñu may ma omo. may ma ma madaar mhm. may ma yooyu ma yóbbu ci dëkk ci l'école yi man ci mhm. yooyu prévention yooyu laa mun mhm. mais les la restriction c'est l'état qui prend la décision ñu jéem a tëj euh, parti ngay waxeen bi ndax wax nañ ci lu bari euh, monsieur le ministre ñu àddu tuuti ci wàllum politique tey euh, yaay coordonnateur département wala bu bu APR benn Bokk Yaakaar ci diwaanu Fatick tey ñu ngi dem ci ay élections locale ndax yaakaar ngeen ni yéen ba tey Fatick yéen a fa moom. invité woo ma pour ñu wax politique dañuy wax lu leer. da mhm. ma nekkaay kaay ñu xool la commune na ngay waxee ba mhm. gox goxaat yi. Mhm. loolu nga mu wax. waaw ah, waxtaan nañ ci ñu bi ci digg bi. nga dog ko bëgg indi politique. dégg nga dañ continuer ba tey dinaa dinaa la dinaa la ci fekk si rek. <laughs> tant yaa ngi wax localité bi. naa la ci fekk parce que foofu ba tey ci localité bi. la de ah Fatick. wax nga dëgg Euh, man la yàlla mayagum. Mm-hmm. sur la volonté du président Macky Sall man may coordonner le groupe Benno Bokk Yaakaar ci département bi. Mm-hmm. loolu aussi ba mu maa ngi ko ciy sant parce que ba muy décider. Mm-hmm. ne man la réunion boobu dafa oo waa Fatick yëpp man fekkuma fi mu ma fekk en Suisse mu ne désormais Fatick. diw mooy xel di oote réunion yi mooy coordonné bu dara amee ci moom la ak yooyu maa ngi ko ciy gërëm. Hmm. tax na aussi ba ma ñibbisee ñu wax ma ko ñu daje dajewaat daje dajewaat jéem a. Euh, takk takk suñu ngemb bu baax a baax a baax. Hmm. Hmm. ñu nekk fa nag ab Modou roi roi de la politique. Euh, au niveau de la au niveau du Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar mooy buur <laughs> mooy buur politique dans le département de Fatick dans la région de Fatick. dara du ko dindi. ah waxuma ne dara du ko dindi yàlla rek mooy mooy mooy fal mooy folli. <laughs> mais tant que yàllaa ngi ñuy may lam ñu doon may. ëllëg si biir. ñu ne neen xepp. élections yi locales yi ñëw nañ dañuy raaflewaat yëpp. toutes les communes. toutes les dix huit communes dinañ ko rafle jaa jàppale ni réeroo mun na fa am ba ngeen ñàkk commune yi mënuñoo ñàkk benn commune ndax Fatick rek am na ay candidats yoo xam ne ñu ngi wax ma ne ah, euh, gis nga boo nekkee nag ab politicien mhm. nekk ci kuréel ñu naan ko parti politique mhm. wala nga nekk ci structure ñu naan ko coalition mhm. bu coalition bi ne fii la foofu la bu ñeneen addee addoo ci leneen nag buñ addoo ci leneen itam du tere. Mhm. à Fatick laa wax de ma xam. Mhm. du tere dinañ gañe mhm. te ñooñu naka la ñuy xoolee ëllëg ak si biir. parce que bëri na ay kàngam Fatick. ñu ngi wax Matar Ba moom mooy maire bi. yow de attends kooku foofu. dep <laughs> commune ba la commune ah, commune de Fatick <laughs> man bokkuma commune de Fatick commune Ngayo Xem laa bokk. <laughs> waaw ba tey ah, mais mun naa la faa tontu aussi. parce que xam naa xam naa. bëri na cadre foofu. mais Sine a bëri cadre. Mhm. Sine Cheikh Kanté. ma ne Matar Ba Sine moo bëri cadre directeur ASP. boo jëlee boo mhm. jëlee Sine. Mhm. ñoom ama Amakodou Niakhar ak ñoom. Basirou Ngom. Mhm. Ah, nga jël Jaareer ah, ñoom Thérèse mhm. Faye ñoom Moïse Sarr. Mhm. nga jël euh, Fatick ñoom Biram Faye ah, ñoom Cheikh Kanté. nga ko waxee ñoom ñoom Matar Ba. guerre de positionnement euh, xaw fa am. mais Sénégal gépp la guerre de positionnement am. mais yéen seen bos dafa raw de Fatick moom da ngay dégg. sax déedéet Fatick rawul. ah Fatick raw Fatick rawul. ah demal Kaolack. demal Diourbel demal demal demal Tambacounda demal Kolda. Mhm. demal Ziguinchor demal Saint-Louis demal daalu le Fouta c'est la nature. Mhm. de l'individu qui est comme ça. buggu mën a mën a mën a mën a mën mhm. a mën a mën a nag tant que yàlla ne na yow a yow a yow lay doon bu ne du yow du yow mënu leen jural ba. tey euh, euh, mënu leen jural leneen itam. local yi moom. Mhm. xam nga xam nga ndëraan. Mhm. ndë xamoo ndëraan de ah ndëraan de ñu ah, maasale. Mhm. Fatick Fatick moom. c'est maanaam bu ngeen tëddee da ngeen di nelaw. xandoor. monsieur le ministre loolu moom xanaa amul amul opposant mais amu fa. amul fa wala da nga leen minimiser. amu fa non bu fa amee. Mhm. c'est pas un problème de minimiser. Mhm. mais jël jëlal élection élection élection élection yi passé rek hmm? pourcentage. Mhm. ñi dem sur la liste Benno Bokk Yaakaar sur les dix huit collectivités territoriales. dix huit. Hmm? Benno Bokk Yaakaar a gagné yëpp. sur les dix huit. ñoo gagné. maanaam dara tiitalu leen foofu. en tout cas du gaynde du gaynde moo ñu tiital foofu. am na question boo xam ne yéen bu ñu leen ko laajee du ngeen ci sawar a tontu mbiru ñetteelu mandat. kan mooy kan mooy def mandat bi. ah ñu ne njiitu réew mi mm-hmm. dama laaj ko njiitu réew mi. ah yow loo ci amoo ci laaj ko njiitu réew mi. Mm-hmm. c'est lui l'intéressé. Mm-hmm. man nga ne ko président da ngay def da ngay def premier mandat am de demal Oil Mbagnick Diop. ngeen organiser benn rencontre point de presse ak président nga laaj ko man maa nga ngayoo xem te di nga di nga amaat foofu sa. non man maa nga ngayoo xem di nga présenté wu euh, comme maire. waaw ngayoo xem waaw comme maire. Mhm. dinaa présenté wu boo ma ko laajee mën ne la dinaa présenté wu mhm. boo ma laajee local yi ndax dinañ gagné ndax duñu gagné dinañ gagné. Mhm. dix huit collectivité territoriales. muy les dix sept commune ak le conseil départemental. mais nag Macky dina am troisième mandat du am troisième mandat. dina ko def demal nga laaj ko Macky. wala mbañik andi leen rajo ngeen info eh, rajo ngeen yéen a ngi ut <laughs> bu dee amul leen sax ci la nébuleuse de télé la dem leen laaj ko man bul ma ko laaj. <laughs> ñu dellu ci l'élection présidentielle c'est un <laughs> à son peuple. l'homme c'est Macky. allez la question allez lui poser la question. maanaam amagoo yow réponse bi daal. mais luy suma luy suma yoon ci loolu. je ne suis pas président de candidat président de la république je suis candidat maire de la commune de Ngayokhem et coordinateur di Benno Bokk Yaakaar dans les départements de Fatick pour arriver à rafler les dix-sept collectivités territoriales. te bu amaatee noonu ngeen koy defaatee. noonu lañu koy dugalaatee. alors si vous permettez bien euh, ci ñu njeexitalu émission bi wax ci mbirum tàggat yaram jiite nga itam nekkoon nga fi ministre des sports. tey gis nañ candidature Augustin Senghor ba ngeen teg benn comité soutien yéen ñi nga xam ne yoroon ngeen fi ay nekkoon ngeen fi ay jëriñ tàggat yaram ndax loolu mën na may confiance nit ki ba mu mujj nekk tey njiital kaaf. dama lay yëgal leen. Mm-hmm. man ba ma jógee ba ma commencé liggéey. 74. Mm-hmm. Mm-hmm. ba ba ma retraité. inspecteur de la jeunesse et des sports la xamuma lu dul ministère des jeunesse et sport. Mhm. xamuma lu dul ministère des mhm. su ma dem ci beneen ministère. Mhm. sauf parenthèse bi ma am. en en mille euh, deux mille six deux mille sept. ma ànd ak Macky nekk son conseiller technique. en matière de jeunesse et de sport à la primature et à l'Assemblée nationale. donc euh, sport boo ma ci laajee mun naa am kontaan. boo jëlee candidat yi nga xam ne yi ñoo nekk di ut pour diriger la CAF muy la confédération africaine de football boo leen xoolee nga jël leen individuellement ci jikko ak ci comportement kenn kenn gën ko Augustin ci xam taxi te dal mhm. kenn gën ko Augustin mhm. mais mhm. problème bi. Mhm. du parce que ñun au Sénégal def nañu un commité de soutien. Mhm. ce qui est très louable parce que boo jëlee ministre yi fi jaar yëpp te di dund. Mhm. nekk ministre des sports daje nañ du benn du ñaar autour de Matar Ba. et waxtaan nañ ci suñu biir. boole nañ ci aussi ay grandes personnalités. de ce monde là. boo jëlee le monde de la culture Youssou Ndour a ngi ci. Mhm. boo jëlee le monde du sport ah, ñoom El Hadj Diouf ñoom Fadiga ñooñu ñëpp ngi ci. Mhm. ñu ngi waxtaan. am ngeen chance pour mu jiite ko. waa am nañu chance bu dee liggéey nañ ñi ñu war a liggéeyee. Mhm. parce que du parce que def nañu comité de soutien rek Augustin am na chance que Augustin mun naa gagner parce que du ñun ñu ñooy voter du yeneen comité de soutien yi ñooy voté fédération mais les fédération africaine mhm. ñooy voté doon ngeen waxtaani xam na ci yeneen fédération ku nekk ak sa pàcc je crois que nag ñun mhm. am nañu ay stratégie boo xam ne bi autour de Matar Ba mhm. ah, ñu ngi koy bëgg a élaborer pour dem a xam naka la ñuy euh, évoluer au niveau de l'Afrique parce qu'il faut avoir au moins vingt huit fédérations wala vingt neuf fédérations. Mhm. yoo xam ne dañ lay wooteel. Mhm. am benn candidat sous région euh, ci. kooku moo gën un candidat pour la région west africaine. Mhm. surtout que CEDEAO la ñetti candidats yëpp CEDEAO lañ. je crois que donc euh, le président de la CEDEAO ak le président de la commission. avec les autres présidents. nga xam ne yi ay candidats jóge nañ fa ñii bu ñu waxtaanee ci seen mmh. biir mmh. Mmh. war nañu mën a trouver un consensus ne candidat bi la ñuy supporter yeneen yi ñu ne leen désister leen je crois que donc kooku c'est la meilleure formule que nous puissions faire ça supposer que boo jëlee la CEDEAO di seize fédé de seize états ñu joxe ay consignes de vote pour les seize président de fédération déjà am nga seize voix yoo xam ne yi c'est c'est assuré ak quatre-vingt-dix pour cent pas à cent pour cent <laughs> que gars yi bu ñu duggee ci seen lobby yi <laughs> lobby yi <laughs> ah ngeen dugg seen lobby rek affaire yi daw uh-huh. ah am nga koo xam ne kii mën ngaa soppi boppam uh-huh. mu def loo xam ne lii dafa naan ah dama juum uh-huh. yaa jiite itam escrime waa escrime maa jiite fédération sénégalaise escrime bu ndem si yàlla waxa ba jógee fii Euh, dénk ñu. Mhm. Euh, maanaam direction bi. <laughs> def nga ci ay jéego. Euh, ñu def ci ay jéego. Mhm. jiite aussi mhm. dañuy wax confédération africain d'escrime mhm. constituée de trente trois pays mhm. yoo xam ne yi trente trois fédération la bi waxaab di jël euh, escrime bi sept féd six fédération ñoo amoon en Afrique léegi léegi ñu ngi ci à trente trois fédération jéego am na ci jéego am na ci léegi ñun ñu ngi participer à toutes les compétitions programmées par la fédération internationale ñu ngi participer à toutes les compétitions programmées par la confédération international. kañ ngeen di amal AG bi. assemblée générale bi normalement mois de septembre bi passé lañ ko waroon am. bu mhm. bu bu confédération bi. Mhm. mois de septembre bi lañ ko waroon def mais bi tax na. Mhm. rassemblement yi amatul. aéroport yi tëj nañ leen. boo déplacé wu y a des contrôles. conditions et des et des et des tests. te la fédération internationale nee na tant Covid bi Covid bi jeexul. Mhm. assemblée générale mënut am. ndax mhm. au niveau de sa fédération. donc dañuy maintenir la statu quo. parce que ñoom aussi. Mhm. fédération internationale wala naa def assemblée générale am. mais tant Covid bi jeexul ba nit ñi mën a déplacer. kon ci Sénégal itam faaw Covid bi jeex ngeen mën a def AG. non Sénégal fii amat on a encore euh, trois ans. deux ans deux ans de présidence. Mhm. bu fa boobaa ngeen doo ko def AG. wala ah, ngeen xam naa ne fii ak boobu nag moom. Mhm. Covid bi dina fi jóge. Mhm. monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa Ngayoxem eh, di la sant itam bu baax di la gërëm itam. fogole Ngayoxem kam ngar umeke xayen Rewmi FM. danguram men pour mu lay ki andoona yee ten in mbi'u Ah, yan gotna mairie fe bo xaye mhm. aten ah, in bugo meke a ngayoxem i leyan no affaire a cangnale mhm. i leyan no affaire courant fe électricité fe i leyan no affaire foof le mhm. muy l'hydraulique de la république la pose de la première pierre a fi'in maana mbin martin responsable politique ke in ndef maaga Ah, bo ndiik mhm. mhm. a qala xe nanga cour démarrer a fule in laya aussi na politique fe no nqayoxen ndax xam ref me xam ref candidat ndax ref kim candidat mhm. in laya aussi na président de la république na covid fe keke andoona yee ten refu jirne andoona yee ten ten refu meen in laya teen bon a ref ka andoona yee maxey gidma réew mi mhm. gidma journaliste fe xuraxama meeke xaye mhm. in mbaxtaanoyo no keeke njoko njal kon njoko njal yooyu itam di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité si rajo Rewmi FM